rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yaxduruun mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara di leen baalu àq tey baal ñëpp ak ak di ñaan yàlla suñu borom guddi gu mag gi nga xam ne moom lañ jublu ak bëccëg bii ñu yendoo lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu lépp luñ ci am ci rëcc rëcc yàlla ñu ko suñu borom jéggal bu ñu ko jéggalee yàlla ñu ko soppil ay yiw ñu njëkkalante ak waxtu wi rek bëgg leen a xamal ni kii nga xam ni moo nekk ci suñu wet di sëñ Modou Mamoun Diop di taalibe ci kër gi di mbokk di lépp amit ab cër bu mag ci kër gi moom lañu bëgg a bàyyi mu waxtaan ak taalibe yi ci loo xam ni dana yokk sunug taalibe waaye waxtaan it ci cheikhul xadim radiallahu anhu naka la daan dundale gàmm kon du jar ñuy guddal dañuy yam foofu rek bàyyi ko mu ñëw ci waxtaan incha allah ñuy sàkku ci mbooloo mépp rek ñu déglu te képp koo xam ni da am am addiye doo joxe jarut ñuy jóg dana am bu dee ci jigéen ñi ne ci boor boobu di ko ñu koy jox bu dee ci góor góor ñi dana am ko joxe mu bañ a am maanaam surxo surxo incha allahu sëriñ bi mi ngi ñëw léegi ñu defaale ziare beeg lépp kon bisimilah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi almuin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi ixwata al imaani wal iraada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bu nu yeesalee sunuy sant sunuy cant ci sunu boroom tabaaraka wa taala di julli tey sëlmal ci aleyhi salaatu wassalaam di yeesal sunu pas-pas ci a cheikh ahmadou bamba xaadimu rasuul di ñaan sunu boroom dolli ay leeram te tas ci barkeem noo ngi jooxe ay nuyoo di ñaan jàmm ju ànd ak yërmande ak barke yal na ko suur sotti ci mboolem ku teewe jataay bi ak ku aman yéene nu di leen wax asalaamu aleykum wa wa barakaatuhu di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi sunu kilifa gu tedd gi nekk ci biir di a Cheikhul Sëriñ Xaadim Mbàkke Muhammad di ñaan sunu boroom dolli koo sàmm te dolli koo jàppale xam nañ ni yan bi mënta woyof waaye yàlla mi ko yan bu ko téeñalee ba noppi jàpp ci yan bi du dang daay du tuuru te diisaay bi du ko yëg te dana yegg fa mu jëm yal na ko yàlla def di fàttali ko bu baax yaari jàmbaar yi nga xam ni ñoo ko séq te ci son ci seen ron kilifteef mu di ci wéyale liggéey bu mag bu rëy bu tedd bi nga xam ne liggéey bu mag la ana mag mi mooy kan a Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma liggéey bii moo ko batale woon ak doomam ju baax ja a Cheikh Mouhamed Mbacke sëriñ mbakki soxna loo mu di ko doxal ba bàyyi ko ak sunu jàmbaar jii ma tudd léegi di sëriñ xaadim mu di ko doxal ba sunu jataayub tey bii yal na yàgg te ànd ak jàmm waaye ak wéttalam wu am jom wa te bëgg lu baax te rëy yéene te rafetub liggéey muy soxna njóoba takko jóob waaye di fàttaliku waale mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon ak sëriñ Cheikh di wéyal loola ba ànd ko ak sëriñ Mouhamed di wéyal loola ba tey ji tekkiwu yu seenu laxasaay ak seen wuutaat yi nga xam ni ñoo tollu ci yëngu ak yenu liggéey bi te seen yitte yëpp doon rek laxasaayu nekk ci ginnaaw sëriñ xaadim ngir wéyal bis bi ak yeneen yu dul bis bi te aju ci liggéeyu yoon wi loo ngi fàttaliku mag ñooñu ñëpp di ñaan suñu boroom yërëm ñi fi bàyyi ko te sàmm ñi fi des te barkeel njaboot yi leen wuutu te am pas-pasu yanu liggéey bi ba du laal suuf bokk yi noo ngi nuyu ñu nu bokkal seq jataay bi yëpp di gendiku sunu bokki taaluweey bopp yi nu tollool te bokk ak ñoom fu nu dale ci waar wi muy waa wilaaye Louga di sant seeni taxawaay lool di rafetlu itam seeni jëf di am ca lool ci yéene ji ñu nu yéene yiw bi nekk ci jataay bii ba tax ñu duñu fi toogloo xam nañ ni dañ ñoo yéene yiw bi rekk waaye du sax danoo man li ñu bëgg waaye lu mën a xew yéene nañ ñu daal yiw wi nu am pas-pasub ñaan sunu borom tabaaraka wa mu ubbi sunu dënn leeral sunu kàddu ba nu mën a jooxe lu bokk yi danañ ko jariñoo ci alayhi salaatu wassalaam jaalana allahu min allasina yastamiuuna alxawl fa yattabiuuna ahsana yal na yàlla def nu bokk ci way déglu yi nga xam ni lu ñu dégg lu ne la ca rafet lépp danañ ko jëfandikoo sëñ Lamine mi ngi wax léegi ñiy joxe addiya ni ñu war a def waaye maa ngi yalwaan nit ñu jox ma addiya yi déglu lool itam maa ngi koy yalwaan ñu may ma rekk addiya yi déglu dana tax lu ci am njariñ ñu mën koo jariñoo loo ci xam ni itam luñ ma war a jubbantee la dina tax ñu xam ko ba man ma caa jubbanti mbokk noo ngi dëgmal guddi gu rëy gu yàlla rëyal gu rëy fi sëñ Touba gu sëñ Touba rëyal muy guddik yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mawlidul nabi bokk yi guddee ngi nii di ñëw koo xam ni ci la feeñ ki nga xam ni yëngutuy sëriñ Touba yëpp ak coonaam yëpp xat-xati jamonoom yëpp ak wéetaayam sàkku ngërëmul ki feeñ ci guddi gi rekk ko waral sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi noo ngi jëm ci guddik sëriñub sëñ Touba nu bëgg lu nu ci déggee ndax benn baat la walla ñaar ci ni sëñ Touba defan sëriñam nu war cee mën a jànge nun ni nuy def suñ sëriñ bokk yi noo ngi jëm ci guddik koo xam ni kenn tolluwul ni moom fi sëñ Touba ku sëñ Tuubaa wormaal lool te jox ko cër lool te naw ko lool te bëgg ko lool te fonk ko lool mbokk yi noo jëm ci guddi koo xam ni sëñ Tuubaa jox na ko léppam dafa wax ni giñ na ci yàlla moom sëñ Tuubaa giñ naa ci yàlla te moom lépp lu mu wax bu ko giñul it gëm nañ ko te ban ko gëmee itam mooy dëgg waaye li muy wax rek a toll noonu ci moom ba tax muy giñ sëñ Tuubaa giñ naa ci yàlla ni samak dund samak faatu samak yëngutu samak dal lépp jox naa ko rasulullaahi sallallaahu alayhi wa billaahi lasi laa ilaha illa huwa xayaati wa mamaati wa harakaati wa sakanaati maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ sama lépp laa jox yonent bi Tuubaa ne képp koo xam ne bokk nga ci ñi yàllay waxal koo xam ne bokk nga ci ñi yàllay waxal yàlla nag ñi muy waxal mooy ñi amum xel ku noppee am xel yàlla waxatul ak yow waaye sëñ Tuubaa nee ku bokk ci ñi yàlla di waxal yàlla boole la ci ñi mu gàll jëf ci seen kaw ba bu ñu jëfee aw yiwu mu bind ko fay leen bu ñu jëfee safaan bu leen jégalul topp leen ndax boroomi xel lañu sëñ Tuubaa nee na ñooña ku ci bokk war na laa leer nañ ni man oma benn sëriñ bu dul sallallahu alayhi wa baana li kulli man lahu maqulu anna wasilati huwa rasulu ku am xel daal war na laa leer naññ ni man rasulullahi rek mooy sama sëriñ laa abtaxi xayra nabi wasilatan nee na oma xemmem téef oma bëgg sama xel dajul ci joxe sa bopp ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa moo tax mu wax ni guddeem gii nu dëgmal te sëñ Tuubaa kat day doon rek ay tomb yu ñuy tànn di ko tudd ngir wane ni sëñ Tuubaa doon gàmmoo ak ni mu fonke boroom gàmmoo waaye sëñ Tuubaa dund bu gépp gàmmoo la sëñ Tuubaa dund bi gépp gàmmoo la mu ne ahyaytu mawlida nabi min assasin waxaadali fawxal muna fii talsasi sëñ Tuubaa nee na 1301 1301 ci ati gàddaay gi sëñ Tuubaa nee na ci laa tàmbalee gàmmo ci saayir atum assasine ci laa tàmbalee dundal guddig yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko gàmmoo mbokk yi weer wii di rabiul awwal ñu naa ko weeru gàmmo mook weeru koor ñooy ñaari weeri sëñ Tuubaa weeru gam weeru weeru màggal weeru donga yee waaye weeru gàmmo ak weeru koor mooy yaari weeri sëñ Tuubaa sëñ nee na ci yaari weer yooyu ci la ma sun borom wammatale mboolem lu ma bëgg di ko sàkku waaye ci la ma dàqal lépp lu ma ragal di ko daw barakata shahrayni xaadata liya maaxtiira lii wana fata axtariya ne barke bi yaari weer yooyu sunu borom ñoddil na ma ci lépp lu ma bëgg di ko sàkku waaye jiñal na ma ci lépp lu ma ragal di ko daw moo tax ñuy wax ahlul maarifa dañuy wax ni weeru koor moo gën a tedd weeru màggal ndax weeru koor sunu borom da ko tudd ci alxuraan moom rek ci fukki weer yi ak ñaar moom la ci sunu borom tudd ci alxuraan waaye ahlul mahabba dañ ni weeru gàmm moo gën a foor weeru koor ndax ki feeñ ki feeñ ci weeru gàmm moo waral weeru koor kon nag dañuy xam ni rek yaari weer yépp ñoo am tolluwaay ñoo am dayoo fi sëñ Tuubaa jëmmi weer wi muy weeru gàmmo ñu naa ko rabiul awal ki ci feeñ tax na jëmmi weer wi rek sëñ Tuubaa da cee bind lu bari lu bari la sëñ Tuubaa bind ci weer wi rabiul awal liya nee na weeru gàmm maa moom maa moom weeru gaaw ñeel na ma rabiul awal liya bind na min rabiil awali bind na fii rabiil awali lu baree baree bari lu xamul nu mu tollu la sëñ Tuubaa bind ci jëmmi weer wi te waxagul sax ki ko amal solo dëgg ci biir weer wi waaye ki ko amal solo ci biir weer wi muy ki ci feeñ ba tax weer wi tollu nu moroomi weeram tolluwul muy muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom it sëñ bind lu kenn xamul nu mu toll ci turu muhammad wi rek muhammad turu muhammad rek sëñ Tuubaa bind na ci lu bare bare muhammadun muy jëmmi tur wi sëñ bind na ci lu bari wenn araf wu ne mu def ca bayit yu ñu xamul nu mu toll muhammadun benn la ci muhammadun muhammadun muhammadun indi tur wi yetti yoon muhammadinil mubashir muhammadinil mubashir sëñ Tuubaa bind ci lu baree bari gàmmoo moom rek mooy li sëñ Tuubaa daan woote gàmmo rek la sëñ Tuubaa daan woote gàmmo rek la sëñ Tuubaa daan woote leneen lu mu doon nag manees la ko woote ci ndigalam waaye sëñ Tuubaa gàmmu rek la daan woote bu weeru gàmmu masaa teru sëñ Tuubaa day tere ku dekkalub taal waaye dañuy togg bëccëg di tàngal guddi bu weeru gàmmu masaa teru dañuy togg bëccëg di tàngal guddi lépp loo xam ni lu doomu aadama masa bëgg ci sëñ bi mu jafe bu weeru gàmmu ñëwee boo ko bëggee dana yomb lool lépp lu waaye daan bëgg ci sëñ bi mu yomb ko bu weeru gàmmu ñëwee boo ko bëggee dana gën a yomb te dana fulu weeru gàmmoo buñ ko masaa di séenu ku njëkk a wax sëñ Tuubaa ko weer wi feeñ na kere di nga am neexal bu duun boo xam ni xibaar ko ni weer wi feeñ na rek moo ko may sëñ Tuubaa ku jafe la woon bari na ku gone woo ci kanam sëñ tubaa ci biir kër gi waaye ci ay nettaleem dala naan mas naa koo séen jamono sàngam wala mas naa koo séen jamono sàngam sëñ Tuubaa ku jafe la woon sëñ Tuubaa du woon ku jog yegg ci moom waaye jafem gi li muy jafe-jafe sëñ tubaa ku daan yomb la ci weeru gàmmo ku daan maye ñu di ko gis la ku daan maye ñu yegsi ci moom la bu gàmmo masaan yegsi teraangay gàmmo sëñ tubaa ci boppam moo koy séddaleel boppam sëñ tubaa mooy takk ndigam di teralal boppam ñiy gàmmoo kenn doyu ko ci woon waaye ki tax ñuy gàmm sallallahu alayhi wa sallam donte wax naa léegi ni dunduk sëriñ bépp gàmm la waaye ngir feddali rek ak wane engagement bi mu am ci gàmmo tax na mu wax ni alayhi salaatu wasalaam mi ñuy gàmmool dama koo ameel borub tagg dama koo ameel bor boo xam ne maa ko warlul sama bopp muy bor bu ma gàll ci sama loos ci at mu nekk ma indil ko tagg yu bees waaye saa bu weeru gàmmu teroo ma dolli ca yeneen tagg yu bees waaye bis bu bisu gàmmu yegsee ma dolli ca weneen tagg wu bees sëñ tubaa saa bu weeru gàmmu masaan teru mu def xasida ku bees waaye saa bu bisu gàmmu masaan yegsi mu def xasida gu yees sëñ Touba léppi gàmmo lu wata boore la daan doon ci moom léppi gàmmo da koy solal mbuumu bees di ko kaalawul kaala gu bees di ko bindal xasida yu bees di ko sotlul xalima yu yees di ko jàmbalul daaju bees di ko wutlul kéedi yu yees lépp sëñ Tuubaa ci gàmmo lu wata boore lay doon wax naa léegi ni dekkalub taal sax dekkalub taal siñ tubaa da ko daan tere ci gàmmoo waaye taal bi day dëkk ci tàkk ñuy togg ba bëccëg di tàngal guddi ala alayya li wajhillaahi daynu sana mustahsinan kulla aamin yawma yuxtaaru at mu ne warlu naa di ko defal di ko defal tagg yu bees yu rafet lool yu neex waaye weeru gàmm wu ne warlu naa di ko defal tagg yu yees yu rafet yu neex waaye yow ma yuxtaaru mooy bisub gàmmoo bisu gàmm bu ne dinaa ko defal xasida gu bees xasida ki ma wax léegi muhammadin al mubashir muhammad mi ñu bégal bégale ko ci jox ko xeet wi nga xam ni mooy xeet wi gën ci xeet yi loolu bokk na ci li ñu bégloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ñu ko bégalee waaye yu bari la waaye xasida googu muhammadinil mubashir bi ko sëriñ bi tëgg di ci tagg alayhi salaatu ci biir xasida ga ma ngi cey wax naan mboolem may alayhi salaatu wasalaam mayam yi moom alayhi salaatu wasalaam ci barkeb mayam yi la ñu jiitu woon alayhi salaatu wasalaam ñëpp jube waaye ci barkeb mayam yi mooy ñi ñëw ginnaaw alayhi salaatu wasalaam ñëpp ku ci jub ci mayam yi nga jube hibaawu ahmada hada man sabaxa wa man taaqara lada moxtil baqa yàlla mi nga xam ni moo fi des mësu fee jóg te du fi jóg moo defal alayhi salaatu wasalaam ci barkeem képp ku mas a jub ci ñi ko fi jiitu barkeem yonent bi la tax a jub képp ku jub ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom def na barkeem bi boo la tax a jub moom sëñ Tuubaa mu wax ni moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam ku baax la ku baax lool ku yéeme aw baaxin nee na ab sang la boo xam ni càngam gi mës nëbbu te càngam gi du dog mukk muhammadun ni'mal mukarramul karim suudaduhu laa yaxtafi wala yarim sëñ Tuubaa nee na ku baax ku yàlla baaxal lool moom alayhi salaatu wasalaam ku yàlla def mu di ab sang càng goo xam ni càng gu la sëñ tubaa ne yonente bi càngam gi nëbbuwul ni mu gënee nit ñi ne lu ni fàng la waaye nee na laa yar yi mu du dog mukk ba faw ba faw alayhi salaatu wasalaam mooy doon sangu mboolem mbindeef yi mu ni mboolem samay xalima li muy bari bari man sëñ tubaa daa yi ma jambulu wala sama jëmm sax man lépp def naa ko ak cant ñeel sa borom tabaaraka wa taala mi dox sama digg ak way kiñaan ñi ci barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam daami daadi wa xilaami wal jasad li shukri rabbil firaari man xasad li shukri rabbihi firaari man xasad ne samay daa samay xalima sama jëmm ci boppam lépp def naa ko ak cant sante ko suñ borom mi ma baaxee yont bi nga xam ni ceem la ma yàlla sorale mboolem ñu xiñaan ñi sëñ Tuubaa ci bisub gàmmu bi maa ngi ciy sant sun borom tabaaraka wa moom mi borom bindéef yi di sant jàmbaaram ja jàmbaar ji mooy Muhammad alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ni sama jinaasa da koo neex jinaasa ci woy jinaase sëñ Tuubaa nee na sama jinaasa dafa dafa neex sëñ dafa neex yonent bi alayhi salaatu wasalaam jinaasa nag ci woy mooy baat boo xam ni ñaari baat yoo xam ni ñoo bokk nu ñu leen di bindee ñoo bokk nu ñu leen di maase ñoo niroo ay araf waaye bokkuñu lu ñuy tekki loolu mooy jinaasa ci woy ci arab loolu nag dafa bari lu muy feeñ ci woyu sëñ tubaa waaye sëñ Tuubaa nee na loolu dafa neex yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne askuruhu fii sal yow mi rabbanaasi ala sujaahin charrahu jinaasi boo demee ci asiru ma al abraari xina asiru wasanna al ayda ani unaaka asiru da ngay gis yaari asiru yoo xam ni lépp ñoo ko bokk lépp ñoo ko niroo waaye bokkuñu lu ñuy tekki loolu mooy jinaasa ci woy sëñ tubaa nee na loolu dafa bari lu mu koy feeñal ci mbindam waaye nee na loolu daa bégloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent boobu jox naa ko liggéey bu sell jox naa yonent bi liggéey bu sell boo xam ni liggéey bi day saafara jàngoro yi dëndi góor ñi gëm yàlla liggéeyal naa yonent bi liggéey bu sel jox naa ko liggéey bu sel indil naa ko liggéey bu sel boo xam ni liggéey bi day saafara dëndub góor ñi gëm yàlla lil Mustafa aw saltu xidmatan safat su dóor a xaw min muumi nii na xat safat nee na sama liggéey bi may liggéey yonent bi day saafara dënnub góor ñi gëm yàlla mu ne tagg gi may tagg alayhi salaatu wasalaam nag wammatal la ma njariñ loo xam ni benn lor dootu tàbbi ci biir njariñ li man maa yoon njariñ loo xam ni benn lor dootu tàbbi ci biir njariñ li nga xam ni tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi indil na ma ko moo tax danaay wax ni sëñ tubaa rek la yàlla baaxe ku mu defar boo bëgg na yàqu it dootoo ko man ku sëñ tubaa defaral boppam boo bëgg na yàqu it doo ko man ku jéem a defaru nag maa nga defaroo feneen waaye ku sëñ tubaa defaral boppam daal yow boo bëgg na yàqu it doo ko man defarub sëñ tubaa du yàqu fi mu nekk koo xam ne sëñ tubaa defar sa maam te te nga sàmm defarug sëñ Tuubaa ga sàmm defarug sëñ Tuubaa ga ñàkk dépasse du yàq say nelaw ndax wóor na la boo xëyee doo diñee ku sëñ Tuubaa defar sa maam laa wax te nga sàmm defarug sëñ Tuubaa ga ñàkk dépasse du la yàqal ay nelaw ndax wóor na la boo xëyee doo diñee mu ni liggéey boobu ma liggéeyal alayhi salaatu moo ma jox njariñ loo xam ni képp ku ma ko jariñ ak yàqu dootu tabbi ci yow matxu nabiyil muntaxaa xaada xat xaada lii nafaxoo bi laa asan fan xaada moom sëñ Tuubaa ne yonent bi bégloo naa ko ci jéeri ji bégloo naa ko ci géej gi ci ñaari barab yooyu muy géej gi ak jéeri ji itam mbégte yi ma ko ci defal mooy tagg yi ma ko ci tagg ba ñu bég tax na moom alayhi salaatu wassalaam mu defal ma mboolem sama bëgg bégloo naa ko ci géej gi bégloo naa ko ci jéeri ji tagg naa ko ci géej gi tagg naa ko ci jéeri ji ba yég ni bég na ci mbégte mi nag defal na ma ci mboolem sa bëgg-bëgg dajaleel na ma ko jox ma ko bashartuhu fil barri kal bahri ma an wa fii himaaliya muraadi yajmaa nee na bind na ay xasida ci jéeri ji bind ay xasida ci géej gi boo demee ci jawaamiul kalim fi maa war da anil abdil xadim sëriñ Silla mi ko bind nee na sëriñ Tuubaa nee na te nee na li ma bind ci téere bi ñetti su rek la am lu ma dégge ci sëñ Tuubaa wala tu ma toxale ci mbindum sëñ Tuubaa wala tu ma toxale ci ku déggee ci sëñ Tuubaa nee na ci téere bi muxaddimaatul am daa il bi ko sëñ Touba doon yeesalaate mi ngi sore ndakaaru ni ndar soree ndakaaru waaye ma nga cey wax ni sëñ Touba nee na bi muy bind ba yegsi ci yu basirukal baax yi bi xatti karaamatan wa in kuntu an ardil madinati saana yi ne sëñ Touba nee na ci lañ ma maye xasida gi ñu ko ñu di ko jàng ci barab bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam suba ngoon nee sëñ tubaa nee na bi mu yegsee ci bayit wi lañ ko may xasida gi subaa ngoon ñu koy jàng ci barabub yonte bi alayhi salaatu wasalaam donte nag giseesul ñu koy jàng beneen xissa te mooy sa xarit boo xam ni sax dafa gëmul yàlla bu faatoo da nga yéene ko àjjana wax nañu ni boo ko jàngalee xasida gi ba yegsi ci bayit wi sax jërul ngay yeggale xasida gi yu bashiru kal baax yi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardil madinati saa nax yi sëñ Tuubaa cofeelam ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu réy la bi mu koy feejal waxan naa ni ay waxam ci nun jërul giñ waaye giñ na ni cofeelam ci yonent bi toll ba tax mu ni mboolem adduna si mboolem adduna buñ ko feesalal ak wurusu ngalam wa gën a cher nee na sama cofeel ci yonent bi moo ma gënal loola ak nu mën a toll yaminu rabbiya masaaral mujtaba afdalu min mil il bilaadi sahaba bu ñu feesal adduna ak wurisu ngalam bëgg ma koo wecceel ak sama bëgg yonent bi bëgg yonent bi moo ma gënal lu mën a doon mahat mahabati al muxtaari sayidana hubbil maxaaniya wal ahliina wal walada moo tax mu ni yun si fu aadi hubbahoo hubbal wara fa kay fa laa wa min ha fa kay fa laa wa min huma xustu jara nee na wéttal yi nga xam ne sax ñoom li ma yàlla boole ñu yàlla ci sama wanag sama bëgg yonte bi alayhi salaatu wasalaam moo fàtteloo sama xol ni am naa ay àndandoo wala njaboot sama xol bi yonte bi lekk na ko ba bu jeex tàkk loolu la ñu amoon ci waxtu ngir fàttali dara ci solo si wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu